waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu di nuyu nag ñëpp soppe yi mbokk yi xarit yi am di jàmm yi et di leen remercier la presse nationale et internationale di leen sant seen teewaay gis naa ñi ngeen ñëwee massivement maa ngi koy rafetlu Pape Diouf et la génération consciente ak ñi nekk ci suñu ginnaaw yëpp mu ngi rafetlu seen teewaay ndaje mi nag ñu ñoo ko sàkk woon ndax li tax ñu sàkk ko mooy bëgg waxtaan ak yéen ndax bu ngeen xoolee continent bi ñu nekk muy continent africain ku nekk xam na ne suñu continent dafa bari richesse bari jumtukaay yoo xamante ni dafa am solo lool ci suñu continent muy la matière grise et waaye nag continent bi tey riches bi li muy bari bari bari bari bari loolu ñu naan la culture africaine daf ci am solo lool rawatina la culture sénégalaise et si nous la culture sénégalaise aussi musique daf ci am walu wu am solo ba nga sunu yi sunu grand frère yi sunu papa yi musique sénégalaise est bo xamné am am sur le plan national et sur le plan international liggéey ci liggéey bu bu am solo liggéey boobu nag man Pape Diouf personnellement bi ma defee loolu tubaab Euh, introspection dama Khalat. Manam toog ci sama manakan, manam a kan maanaam toog ci sama def sama jataayu bopp posé wu la question que ni sunu kilifa yi sunu bu am solo def ci la musique sénégalaise am am man prise de conscience je me suis dit que ni lolu warul daanu musique bi am fuñ euh, presque depuis trois ans depuis trois ans

xawoon nañu am tuuti frustration ndax li ma leen daan tàmmal que ni chaque semaine daanaa tëgg maximum trois ba quatre fois dans la semaine mais loolu moo taxoon moo ma empêché woon dem uti xam-xam boobu gën a ubbi sama xam-xam sur le plan international loolu moo waraloon sax maanaam yëngu yi ma waroon di yëngu Sénégal mu wàññeeku.